waaye la muy tedd tedd ci yàlla keroog bi ko sukkuraatas ndee dikkalee malakul mawti ñëw taxaw lu mel ne baat wala benn bool moo nekk ci kanamam nga léeg-léeg mu dugal loxo bi ci biir ndox mi moom sallallahu alayhi wa sallam ba mu tooy mu wiccax ko ci kanam gi di wax naan la ilaha illallah inna lil mawti la sakaratin amul benn buur bu dul yàlla dee am na wextan de dee am na wextan moom ki yàlla yónni foofu la toll woon waaye daal di joxar bi baaraam bi jëme ko ca ne fi rafiqil ala yow yàlla maa ngay taamu seetee su kawe sa àdduna doyal naa karbal mawti wa sakaratihi wa inna mafasilo la yusallimu baaduha ala baadin yaqulu alayka salaam tufaariquni wa ufaariquka ila yawmi alqiyamati sallallahu alayhi wa sallam nee na doomu aadama bu tolloo ci sukuraatas ne njàqare waxtaan ci kaw waxtaan da ngay dégg sa kenuy baaraam yi sa sibil yi sa ndawal gi ni kenn ku nekk di nuyu morom ji di ko tàqal di tàqalikoo moom yaa ngi koy dégg ñu kon ko naan yàlla na jàmm nekk ci yow maa ngi lay tàggu ngay teqalikoog man may teqalikoog yow yow mal xiyaamati rek la ñuy tase waat bu ñu ëppaatee buftu bi ëpp ñaareel ko bu ko defee doomu aadama bi ñetti ñetti wextaan daal di taxaw ci kanamam laxtanu njëkk yi mooy sa waraw teqalikoo wii tàkk ci sa xol jàkkaarloog sa lal bii ak sa saal bii mu wóor la sa lal bi dootoo ci tëddati mukk ba saa di taxaw sa saal bi li muy rafet rafet lu ñu wax la yoo xam nga ne tey jii nga génn ko jàkkaarloog taxum bànneel mi ngay war a mi ngay tëdd it yaa ngi jàkkaarloog moom di ko gis jëf yi nga jëfoon yëpp yaa ngi jàkkaarloog moom mu lay xaar ca pax ma li ngay gis li sa bët yi di gis gis bu ko raw ngay jàkkaarloog jëf yi. booleeg loolu yëpp kat sukuraat si nga xam ne moo jàpp sa yaram li wextan wi kenn mënu la koo misaal booleeg loolu yëpp malakul mawtu bi nga xam ne malaayika mi yaa ngi koy siin kenn du ko gis yow yaa jàkkaarloog moom de mu ne tëll ci pay ba jàkkaarloog yow di ñëw melokaan wa muy mel na bu dee jotul woon million na doomu aadama bu ñu ko gisoon bu ñu ko ne jàkk rek daal di dee ci saasi ndax mu ñàngaay kon nag ñetti waxtaan yooyu war a daji ci jàng boobu diggante boobu doomu aadama war na koy bàyyi xel fu mu toll te xam ne moom luy jege lu nekk moo la gën a jege suñ tubaab wax na ko ci téere ba al mawtu aqrabu wa addaha wa amar mboolem lu lay jege nee na faatu moo la gën a jege ndax kenn waxu la kañ la lu lay jege lu nekk faatoo la gën a jege boo génnee sa kër doonte ñaari mètre dox sa diggante sa néeg faatu moo la gën a jege ndax suñ borom waxu kañ la yonentu boobu alayhi salaatu wasalaam nga xam ne moo gën ngeen ji mbindéef gën doomu aadama yi bi ñuy dund ak ba faatoo gën leen ci wax gën leen ci jëf nga xam ne mboolem ak dundam ak i jaar-jaaram lépp waaraate la pour képp képp kuy waaru nga xam ne kenn gën ko tedd ca yàlla muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di xaritum suñu borom di soppeem di tànneefam mu def yonent bu mu yebal ci jaam ñëpp ba waxtu génn jamono jotee ndax suñu borom mu ñël na ko wenn waxtu benn minute mu ñëluñ ko ko ndax yeexe nañ ko benn cers déedéet suñu borom dafa yebal malaayika yu tedd ya ñu ñëw jël ruuxam nga yéeg moom ak yaramam ba ba génnee ci ruuxam googu yóbbu ko ci yërmande suñ borom ñaqam waa ngay sotti binneem yaa ngay jib dënn baa ngay tëf tëfi couleur yaram waa ngay sensé jëbaa ngay siit ak wu ñaq nday joor baat càmmooy ba yépp ngay yëngutu ba képp ku fa teewoon da mujj di di yuuxu di yëkkat prophétie bu ko suñ borom joxoon dox na digganteem ak loolee yàlla dogal ndax malaayikam dee mi faale na ne ab yonant la ba waxtu jël ruugi jotee yontu yontu yàlla Moussa moom la malakul mati mawti masa ñëkk ñu ndikkal Moussa dóor ko mbéj bët ba fuq xam nga ne bu lu njëkk moom lu jiitu yontu yàlla Moussa malakul mawti bu daan ñëw day jaar ci mbooloo mi ñu koy gis mu waaxu ñëw toog ci sa wet waaye ba mu ñëwee Moussa nakk ko mbéj bët ba fukk waaye nag Moussa daf caa daf caa amoon ndigalal yàlla de moo tax suñ borom yedd ko ca ba mu delloo suñ borom daal di koy defaraat defal ko bët bu jekk bu mel na meloon suñ borom ne ko kon nag léegi del làq bu la kenn gisati te balaa agsi dana fekk yow doo doo talati dara doo mën a yëngatu bay mën a jëflanteeg moom soo soo soo ko mënoon a téye it yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon nekk ngeen ji mbindeef lii kiimaan kon moom moomu gën ci bindee fi ñu waaroo ci mbiram jàng ci lu bare bari keroog bu mu génnee jamono nga xam ne diggante yoor yoor te yoor yoor bi di jeexe ñuy waaj a dugg njolloor si ca bisu altine ba ca la ruuxam nga rot doomu aadama yi bëtt fu nekk ñu jaar fa yuuxu yi jóg ñu daldi muur jëmmam ju tedd ja wuute gi daal na kurru ci biir kër gi ñenn ñu ne sallallahu alayhi wa nelaw na ñu ne déedéet bu ko fi kenn waxee kii du nelaw ñenn ñu lu mënatuñoo wax ñenn ñi paralysé mënatuñoo jóg ñenn ñi dof xamatuñ fu ñu nekk Seydina war ibn al-Khattab moo bokk na ci ñi tàggoo woon ak seen xel gàddu jaaseem rek di bélew bélew naan yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku ne Fatima rek dagg sa bopp yonent sallallahu alayhi wasallam dara jotu ko dafa déeyaale ak yàlla rek na Moussa déeyaale woon ak suñu borom ci ca 40 jours am ya ku wax ne yonent bi sallallahu alayhi dafa dafa génn jamono bis bu génnee ci déeyaale beeg yàlla dana dagg say loxo dagg say tànk ba kenn wax ko fi rek. bu ko defee Seydina Aliyun Aliyun Abi bokk na ci ñi nga xam ne dañoo bardé dañoo paralysé mënatuñoo jóg fu ñu toog Seydina Ousmane daal di lu mënatu la ngaa genn kàddu ñenn Seydina Aboubacar Siddiq daal moo ci ànd ak xelam moo ñëw jël gémmiñam nga këpp ko ca lexam ba ne ko tib ta xayyan wa maytan tey nga bi ngay dund tey nga bi nga faatoo daal di jàng ayat alquran wa ma muhammadun illa rasulun xat xalat min qablihi rusul afa in aw qutilam qalabtum ala aqaabikum Seydina Omar bin Alxataab nee na bi Seydina Aboubacar jàngee aaya ji dafa mel ne aaya ji tey laa koy soog a dégg dafa mel ne tey lay soog a wàcc mu soog a gëm ne ndekk kon yonent bi sallallahu alayhi génn na jamono waaw am na ay mandarga yu ulama sukkandiku ulamaul xaqiqa laa wax ñi nga xam ne suñu borom wan na leen secret yi am na mandarga yu ñu sukkandiku ba mën a xam nit kii nga tiim mu faatu ku war a texe la wala ku war a texe di ibnu maajo solo na ak kudul moom jële ci burayda yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne al muminu bi araqil jabil sallallahu alayhi nee na aji gëm yàlla dëgg dëgg bu dee faatu jabi day ñaq tirmisi yi indi ci hadis xasan génne na hadis boobu alhakimu tirbisi wax ci nawaadirul usul ñu jële ci salmanul faris yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na bu ngeen amee mbokk muy faatu na ngeen ko fuglu bu ngeen gisee jëbee jëbaa ngi ñaq bët yi di xelli ndox paxi bakkan yu ubbeeku xam leen ne boobaa day texe yërmande yàlla ci la jëm waaye nee na bu ngeen gisee muy xii xii gi mel ne koo xam ne dañaa dañoo téye put gi couleur yaram yi soppiku nee na gémmiñ gémmiñ gémmiñ gi di di sotti am ndox nee na su boolaa tiim leen ci biram xam ne ci mbugalum suñ borom la jëm la qadarallahu wala sama am na genn góor gu ñuy wax sëriñ njomb jëng mas na maa nettali ne sëriñ abdou samat mu sëriñ tubaa mas na leen wax ci dëkk bu ñuy wax mbar ne leen moom sëriñ abdou samat ne leen a xamee kuy texe ku dul texe di nee na jarul wilaaya ñu ne ko moo mbàkke nuñ ko mën a xame mu ne nit ku nekk dëkk ba mu jëm ak kër ga mu jëm jëf yi dëkk ba lay jëf te fu mu romb ñuy ñuy wax lu jëm ca dëkk ba mu taxaw bu jaree jëf mu jëf bu jaree def mu def seen tànt bi ngeen def tey am na jëmm joo ne bu fi rombee taxaw bu yàggee mu dugg toog am koo xam ne bu fi rombee du toppatoo li ngeen di wax du toppatoo li ngeen di jëf su yëpp sama tum suñ tubaab nee na fii ci àdduna boo xoolee xamee ñuy dem ajjanaa ak ñuy dem sawara Buxaari yi wax na nee na inna seytaane yaxdurul mayta inda mawtihi doomu aadama waxtu wu tolloo ci Socrates dee su boobaa ni ma waxoon ci ginnaaw mooy barab bi gën a doy waar seytaane yépp dañuy jóg dañuy riir wutal si ko doomu aadama waxtu wu tolloo ci diggante boobu Iblis day wax waa këram ne leen gaaw leen bu leen waaj raw de bu leen rëccee fii rek yàqu ngeen bu leen rëccee dootu leen ko jàppati mukk fexe leen ba yàqal ko ngëmam foofu buy faatu faatu waale kébar su ko defee ñaari seytaane ñooy ñëw teew bi seytaane féete wetu ndeyjoor bi féete wetu càmmooñ ki féete wetu ndeyjoor mel sa nuru sa melokaanu baay ki féete wetu càmmooñ nuroog sa ndey kii naan la yow sama doom man dey maa la juróon ba ma faatoo nag maa la jiitu ci këru dëgg gi waaye ci diine yahud laa dee de mooy ngeen ci diine deel ci diine yahud deel ci judaïsme niroog sa melokaanu bàyyi nga foog ne moom la kii mel sa melokaanu waajur wu jigéen naan la yow sama doom maa la daan nàmpal sama wenn ëmboon la ci sama biir bi ah deel ci diine nasaraan man dey ci laa dee mooy nasa diine nasaraan mooy ngeen ji diine foofu nit ki su amul lu ko xettali du baax li ci njëkk mooy nga daan jaamu yàlla jaamu yàlla yu sax ba tawhid du yàlla yu nuur ci sa biir yax yi nekk ci sa deret ji su boobaa sa leeru ngëm googu mooy fuur lakk seytaane yooyu ñu daw bàyyi la soo fa agul am na leneen lu mën a xettali jëm ji ñuy wax Abu Hamid al-Ghazali imaamul Ghazali wax na ci téereem boobu téereem bu mu tuddee kitaabun fi kashfi ulumil axira mu ne waxtu woo xamee ni bii bakkanu jëmm ji bakkan baajo ngi toll ci potox yi di yéeg nee su boobaa ay fitna yu bari dana ko gaar mooy Iblis dana yebal mboolem surgaam yi ne leen fexe leen ba jullit bee toll ci di waaj faatu fexe leen dem yàq xelam ma jax-jaxal leen ko ba ba génnee ngëm ci moom su ko defee ñu dikkal jëmm jooju fekk mi ngi toll ci situation bu garaaw boobu nga xam ne ku fa toll loo am xel xel xel sam xel dana jaxasoo bu dul kaaraangal suñu borom su ko defee ñu daal seen melokaan yoo xam ne yii dañuy mel na ñuy laabeere waaji ñu nuroog wala ñu nuroog ndeyam ñu nuroog baayam wala ñu nuroog frère wala ab sëram ko defee naan ko yow diw yaa ngi faatu de te mbir mii ngay nar a jaar maa la ci jiitu kon nag booy dee na nga nekk juif wala nga nekk catholique waxtu woo xamee ni bii du mooyu na woon leen ginnaaw daal di bañ ngeneen mbooloom seytaane daal di di koy dikkalati naan ko deel nekk nasaraan ndax diiney masiix kat moo folli woon diiney Muusa su ko defee ñu koy tuddal fas fasu mboolem diine yu fi masoon a jaar su ko defee diggante boobu fi la suñu borom du bàyyi képp koo xam ne kii ci maandoom la la bàyyi foofu yi ngay jenge wàcc diiney lislaam jaar ci wetu càmmooñ nga yàlla nañ ci suñ borom musal loolu mooy li alquran wax rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab suñ borom na nag am njub ci jaam bi ak wiiw ak saxal ko ci ngëm su boobaa sayidna jibril la yebal bu jibril ne seet bu ko malaaya bu ko seytaan yi séenee dañuy daw su ko defee bu Seydina Jibril taxawee ci sa kanam ne la xanaa ne la xanaa xàmmee nga ma de man de maay ndaw li yàlla daan yebal ci ay yonantam sa diine ji maa koy indi woon ci sab yonant ñee ay seytaan nañ jàppal ci sa diine lislaam ji faatul ci diine jooji mooy ngën ji diine loolu mooy li Sëriñ Tuubaa di ñaan waaw li naa yaa rabbana husnal xitaam innal mamaati a gadan yawmal qiyaam nee na yow suñ borom yàlla na ko ñu méngale ak mujj gu rafet te waxtu wa ñuy faatu ak ëllëg ca taxawaayu bis kon nag bépp bu yàlla do dogalee ngay dox bis ba fekk ak jullit boo xam ne mi ngi toll ci diggante boobu lu mat a gëstu la lu mat a xam la bul jàng mukk mukk ay attey julli ak attey asaka attey koor attey aj makka te fàttee gëstu bu baax a baax nit kuy waaj génn àdduna nu mu war a waajale boppam ak yow boo fekkee muy waaj a génn jamono noo ko mën a waajale ba dimbali ko ba mu texe doomu aadama diggante boobu dañ koy jàppale de bul bàyyi ñuy yuuxu ci wetam bu fa ay gone nekk bu fa ay ay objet d'art nekk bu fa ay photo yi moykati yàlla nekk ci néeg ba am na ay négatif yoo bu nekkee ci néeg ba man naa waral malaayikam yërmande du dugg si objet d'art yii ab jullit na ko moytu ko di ko def ci néegam na moytandi ko tamit yooyu nga am ne tubaab yi ñoo koy def yi ñu def ko yu mel ne ay picc wala ñu def ko yeneen animaux yi di ko def ba mu rafet tabaxaale ko ci ay weer bu ko wékk ci sa néeg bu ko def ci sa armoire yow jullit bi am na danger de malaayika yi dañuy daw te seytaan yi bu ñëwee ci kaw bopp ya la ñuy toog dëkk fa loolu am na benn téere spécial boo xam ne mu ngi ciy wax xibaarul saxafi ma ajunni muslim kon nag bu yàlla dogalee nga dox ba fekk sa mbokkum jullit mu toll ci diggante boobu na nga toog ci wetam tey wax laa ilaha illallahu laa ilaha illallah suñ tubaa nee na ku mu mujj ci saw làmmiñ nga texe tàbbi àjjana bu ko wax benn yoon yem ci bu ko wax ñaari yoon yam ci feeg yaa gis sa mbokkum jullit moomu di xar-xarle del wax ba muy tàbb ci noppam del wax laa ilaha illallah laa ilaha illallah te bu ko wax ne waxal lan moo waral ñuy tere nga ne ko waxal man nga ko ne waxal mu ne déedéet fekk déedéet jooju waxut ak yow yow nga foog ne yow lay wax ni ma la waxee ci ginnaaw bu nit ki tolloo ci diggante boobu seytaan yooyu dikkal ko naan ko deel ci diine nasaraan wala faatul ci diine yi yëwut su ko defee mu naan mu naan leen déedéet déedéet nga daal di foog ne yow sa mbokkum jullit mi yow lay wax déedéet mu daal di faatu nga ñaawe ko njort moo waral bu ko ne xul bu ko ne neen laa ilaha illallah yow del wax laa ilaha illallah mu koy dégg rek yàgg gi mu koy yàgg dégg bu ko suñ borom namalee aw yiw dana la toppandoo wax ko te mu mujjee ci làmmiñam rek mu texe moo waral nekk liñ jële ci al imam abu jaafar al qurtubi bi nga xamee ni bii Socrates ndee dikkal na ko benn waaye toog ci wetam ne ko xul laa ilaha illallah waxal laa ilaha illallah ah, ñu ne ko waaw yow ñu naan la wax laa ilaha nga ne déedéet ñu ne ko bàyyi ma waay ñaari seytaane ñoo ma dikkal kii nekk ci sama ndeyjoor kii nekk ci sama càmmoñ ku nekk naan ma deel ci judaïsme wala christianisme ñooñu laa naan déedéet waxuma ak yéen de ne ko man nan laay nan laay mën a bañ a waxee déedéet te lii ngeen may sax man bind naa ci téere bind naa ci indi naa ci addis yonante bi sallallahu alayhi wasallam ne ko addis ba ci wax leeroon na man nañ ñi bi ma daatoon ak si fii sallallahu alayhi wasallam nee woon na bu nit ki tolloo ci diggante bi seytaane yi dañ koy dikkal ngir bëgg a yàq ngëmam kon nag tontu wu ma leen waaye seytaane yooyu laa naan déedéet loolu moom la Sëriñ Tuubaa wax ci téere bi laa taamanoon makaayida seytaani qabla firaaqi ruuhi lil abdaani li annahu waqtal mamaati yaati saxsan li kay yaxramuhu taaati Cheikh Amadou Bamba nee na rikk bu leen wóolu bu leen wóolu pexem seytaane ñu ne ko kañ mbakke mu ne feeg ruugaa ngi ci yàpp yaram yi bu leen wóolu pexem seytaane feeg ruugaa ngi ci yaram yi rek seytaane mën naa yàqal nit lanna waxtal mamaati yi suñ Tuubaa nee na waxtu wu dee seytaane day dikkal nit li koy yaxra moo taati ngir xañ ko topp yàlla gi mu dundoon baag si foofu waaye nag li gën a lu dul coobarew suñ borom ak dogalam ba nga xam ne moom ndax suñ borom moom li muy dogal bu ko teg ci sabab coobareem lay demee laa am yusalu amma yafalu wam na waaye li gën a lémtu mooy dund ci njub dañ ne yamutul marwa ala ma asa ki li mu dund ca la ko dee ca la ca lay faatu nit ki nit ki dund ci lu baax di góorgóorlu di moytandiku lu bon di bàyyi tere yàlla yi buñ doonoon junniy nit day juróom-ñeenti téeméer yëpp yëpp buñ dee faatu yëpp ci lu baax la ñuy faatu te it wa yubasu ala ma maatu alayhi nit ki lu ko faatu fekk bu dee dekk ca loolu lay dekki sallallahu alayhi wa sallam nee na waa ji nga xam ne dafa xaru jël paaka wala jël ngànnaay jam ko boppam ba faatu nee na def na musiba du yem ci tàbbi sawara waaye ngànnaay loolu mu jëmoon jamoon ko boppam ba faat bu dekkee moom la ñuy samp ci loxo bi loxo bi day sempeeku rek di jam du mën a téye loxo bi moom lay taxawee bis teñ bu demee sawara yi diiru ba mu fay saxit noonu lay jël ngànnaay li jam ci biir bi rek waa ji nga xam ne daf daan naan sàngara di naan sàngara ba xëy faatu tuubul bàyyiwu ko moom it bu dekkee dañ koy takkal daam saanu sàngara boo xam ne biir yi tiim koll bi rek ñu loxo bi benn benn benn kalamba muy tànk di naan rek di daanu du <laughs> mën a tàqali ko moom ci penje bu tabee sawara it sàngaraam soose rek lay saxe bu dee ki jël pistolet tiire ko ci boppam moom it pistolet boobu lay yor rek di tiire rek bal yi jàll du ko mën a bàyyi mukk kon nag nit ki li mu dund ci lay faatoo te lu mu faatu ci lay dekkee yamatul maru ala ma xaasu alayhi wa yubasu ala ma maatu kon nag foofu mooy barab bi suñu borom di waxee laqad jaat sakratul mawti bil haqq zalika ma kunta minhu taxiidu mooy barabu fa kashafna anka xitaaka fa basaruka al yawma hadidun suñu borom naan la sukkuraatas ndee ngi nii nga sukkuraatas ndee agsi na moom nga daan moytu moom nga daan daw qul inna al mawta alladi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqikum summa turadduuna ila ilmi al ghaybi wa shahada parce que sa naam taxi taaka suñ borom ne la nag xoolal tey ay bëti kese nga dara umbatu la yaa ngi gis lépp tey doomu aadama waxtu woo xam ne ruugi toll na ci dënn bi nga xam ne lekkatul naanatul su boobaa nga gisatul waa àdduna mboolem fu mu jaaroon mboolem fu mu mës dugg mboolem lu mu mës a jëf dana ko fàttaliku dana teew ci kanamum su boobaa mujaahid kenn la ci taabi oon yi daan na wax ne ما من مؤمن يموت إلا وتورد عليه أهل مجالسته الذين كان يجلس إليهم إن كانوا أهل الله فأهل الله وإن كانوا أهل ذكر فأهل ذكر daan la wax ne amul benn aji gëm joo xam ne boo tolloo ci sukraatas ndee lu dul ne daañ la wan ña nga daan jataayool kon nit ki na seet ñan lay jataayool fii ci àdduna nee na bu fekkee ne nit yi caaxaan kat rek nga daan toogal ci àdduna boo tolloo ci sukraatas ndee nee na caaxaan rek ngay faatuwaale kenn mënut fexe ba dëgg tàbbi ci sa làmmiñ mbaa ci sa xol bi. bu fekkee ne ay xalaatkati yàlla ak jànkati alxuraan ak jànkati xasaayit ak ay zikarkat waxkati lu baax ay jullikat ay woorkat ay jaamukati yàlla rek nga daan toogal boo tolloo fa it turu yàlla woo rek mooy teew. xanaa kon loolu ñu waxoon léegi ci ginnaaw gën naa firndewu ci waxi mujaahid ji yonent bi sa alayhi wasallam wax na ci beneen hadis nee na. tànn ki ngay toogal li ko tax am solo nee na toog ak nit ku baax xam nga nu mu mel mu ngi mel na nga am xarit buy jaay parfum xam nga ne waa ji jaay eau de Cologne moom bu la mayul tamit bu ngeen toogee bu ngeen di toog lu yàgg rek feneen foo dem ñu ne yow de sa parfum bi ngay xëy neex na te mën naa am sax laaloo ci parfum bi nee na toog ak waa ji baax loolu lay loolu lay jëriñ koo yàgg toogal rek bu yàggee nam mel nga mel ko wala boo ko melul tamit di ko mel mellu soo jàngee Ihya Ulumuddin Imaamul Xasaali indi na musaaraxatu tabi jikko day sàccante boo doon toog ak benn waay doon ci ko ngeen di toog lu bare da ngay jékki rek am lu muy def nga di ko def tuddoo yëg kañ la la topp jikko day sàccante jëmmi doomu aadama dafay maas day day photocopie te yow doo ci yëg dara sallallahu alayhi wasallam nee na toogaaleeg jataayoo nit ku yées tamit nit ku dëng nee na dafa mel ne nga dem ca mbaarum tëgg ba waa ji nga xam ne mu nga teg Euh, ma nga teg pompe ba di di di ëf euh. këriñ li di jolli xal yi naaw nee na benn sa mbubb lakk wala wala nga xeeñi weñ ñaar yooyu la ko sallallahu alayhi wasallam misaale kan naafiqi fil kiiri kon nag nit na tànn lu muy lekk tànn ko muy xaritool yaa saa yëkkul man cheta tab al leen man cheta tax du sakk la la sëñ tubaa wax ci masaalikul jinaan bi nee na yow sama àndandoo yow sama xarit yow sama mbokk sëñ tubaa nee na lu la neex te xam ne loo lekk da nga def lu mel ne li nga lekk nee na boo lekkee lu dagan lu baax rek ngay def waaye boo lekkee ay da ngaa trianne da ngaa njuuj njaaj da ngaa loterie da ngaa carte nee na mënoo fexe ba def lu neex yàlla ndax ñamu ci bu ñam bi nga lekk deret ji mooy contrôler sa deret ji mooy ku deret mooy soppiku ñaq ñam bi nga lekk nu mu mel lu la lu mel noonu ngay def su ngeen gisee léegi nit ñi neexatuñoo jubbanti waaraate du tabbi seen nopp du dem ci seen xol li ci ëpp dañoo lekkatu lu dagat nit ki li muy lekk bu daganul boo ko jéemee yóbbu ci yàlla da ngay sonn du ñëw mukk da ngay fexe ba lim lekk dagan boo ko waaree mosoo ko dégg boo ko waxee yàlla waaye ku lekk lu dagan boo ko nee yàlla mu ne la bàyyi ma. ñax radi ibnu subrata nee na damaa fekk jenn jëm mujj toll ci waajo a faatu mooy li ma la waxoon léegi rek ci réewum Syrie ñuy wax Saam donte Saam moom booba ëppoon na Syrie ndax xam ngeen ne Saam bu ñu ko mësaan a wax. Euh, deseeru Sinaay bi ba jàpp fii ñuy wax Palestine ak fii Israël nekk dem ba Syrie loolu yépp booba ci réewum Saam la bokkoon nee na maa ngi fekk jëmm jëm jëm jëmm joo ne mi ngi waaj a génn jamono ma ne ko xul laa ilaha illallah sëriñ bi waxal laa ilaha illallah ndegam yaa ngi waaj a génn jamono nee na man daal fi ma naan ko waxal laa ilaha maa ngi ko dégg mu naan ishrab wasxini naanal te nàndal ma waaye naanal te jox ma ma naan nee na naanal jox ma ma naan naanal jox ma naan lay wax ba ruuga ba ruuga rot kooku nekk xam na mbiram na mu demee jeneen jëmm ju toll foofu benn waaye toog ci wetam ne ko xul laa ilaha illallah waxal laa ilaha illallah mu ne ko laa astatiu mënu ma ko wax mu ne ko maa kunta tas naw yow loo daan jëfe mu ne ko sama giirug dund damaa mosoon a njaaloo benn yoon bàkkaarum njaaloo boobee ma mosoon def benn yoon moo tey sa lami sama lami ba tey mënu maa tudd yàlla ci kéefar laay dee njaaloo li muy bon bon bon mooy def kook def kook soxna si jàmbur moom la kenn kenn mënut a lijjanti kooku moom tuyaaba joo am ak yi woo am bis fenc dana ko jël nga dem nga dem nga dem lakk yow lu baax loo am dana ko jël moom ndegam def ko dong ci koo xam ne kii amul borom kër moo waral bi mu toll ci sukkuraat daf ndee lam yi yàlla ba mu dee ci kéefar testament ki nga xam ne kon dafa toppatoo soxna si jàmbur soo xam ne def nañ ca lañ ca war a def mu dem lijjante ba def jëf ju bon jooju sallallahu alayhi wasallam misaal nañ ne njaalookat yi bu ñu demee sawara ba tàbbi biir sawara sawara li muy xasaw xasaw li muy bon bon njaalookat yu góor yu jigéen yi dafa am bëtti wànjar yuy xelliku ci seen kanawee di daw mel na géej ci biir sawara bu ne pëy waa sawara dañuy yuuxu naan lu bon lii di xeeñ lu mu doon ñu ne njaalookat yi la dëtti wànjar yi génn ci seen kanam yi di sotti ko ci biir sawara alaaji Abdou Aziz si xalifa général tiijaan yu baax yi fi nekkoon mas naa ko dégg mu wax lu am solo mas naa dégg mu ne bànneex bu wàccul ab lal jarul gàcc buurum réew suñ professeur ba sëriñ sàmbay daan nañu wax ne bànneex jarul ña maanaam tayal jarul ñàkk bànneex jarul gàcc àdduna jarul alaaxira xisab euh, ñaari xale yu góor yooyu doon dawal oto bi yàgg naa ko wax ci ay conférence téere boobu ñoo wax rihlatul ilal jànn moo ko nettali téere bi arabi saoudite la jóge di dawal seen oto rek da dawal xelu xel wu metti jekki-jekki oto bi ne tël jàllar bi daanu seen ñaari ruu yëpp war a rot ci accident boobu benn jullit ñëw seen leen jàpp leen di leen génne bi mu leen di génnee kenn ku ci nekk yaa ngi xar-xarle di waaj a génn jamono waaj a ñëw këpp génn ñëm ci wet kii naan laa ilaha illallah laa ilaha illallah wa dem ca kenn laa ilaha illallah waaye ñoom ñaar ñi ngi dengoo di ci benn musique di way benn musique ñoom ñaar di ko dengoo ba seen ruuy set euh, sedd ndekete booba bi ñuy accidenté benn kasetu musique la ñu dugal ci oto bi di ko déglu di xalaañu dootu bi ne tëll musique bi dugg na ci seen biir caaxi xol mënatu la génn ñooñu bis bu ñu dekkee di wuyu yàlla bis leen ci musique boobu la ñuy way wujjee ko yàlla kon nag nit ki lu mu bëggul dee fekk ko ca bu mu ci dund faatu kenn waxu la kañ la te bu dee ñëw li ci sa xol bi mënoo tëb tëb génnee ko de su ngeen gisee gaañu baax ñi ragal deewu mbetteel doo xam fan la fekk sa xol te boo tawatee nag sa yaakaar di wàññiku nga waajal sa xol tuub dellu ci suñ borom ndax yooyu ma la fi misaal yépp ci ginnaaw kat mooy jëmm yi nga xam ne ba dee di ñëw faatu li ñëw fekk na tuubuñu ndax doomu aadama mi moom doonte sukkuraat si tàmbali na feeg ruugi ruugi ak si wul di xar-xar li ci dënd bi rek boo yàlla baal tànk bi tàmbali naa sedd baaraam yi day sedd muy topp kenn par kenn loo fi teewlu tuub ko yàlla jéggal la ko waaye bu agsee ci dënn bi bay xar-xarle moom tëj nañ buntu tuub foofu soo tuuba tey doot na jéggal dootuñ la jéggal kon nag ku toll foofu mën ngaa yërëm mën ngaa waajal warees naa xam bu baax a baax nit bu tolloo foofu li muy jànkonteel ak li muy gis ak li muy yëg yaa ngi ko tiim nii rek jëmm ji mu ne ñum waaye la muy gis bu la ko wanoon nga nga yuuxu daw génn foofa kon nag nañ moytandiku yenn waxi aada yi ak yenn waxi bidaa yi di toppatoo way jur yi di toppatoo mag ñi di toppatoo màggat ñi olof am na ci ay boor yoo xam ne yi am nañ ay wax ak i bidaa waar yoo xam ne yi day yàq diine sama dégg ci lenn ci ay nit yi wax ne màggat mu dem ba xubi daas yor ay bëñ ku ko moytuwul mu rey la jiital la nga njëkk koo faatu xam nga ne lu pas bu doy waar a ñu noonu ku fi mënta jëlee sa bopp noo fi mën a jëlee keneen am ñoo xam ne dañuy ami wayjur wala seeni maam ñu toll ci diggante bu doy waar boobu ñu naan daw leen ko de ku ko jege mu yóbbaale de baaw ñam sax buñ ko dee jox dañ koy bëmx ci buntum néeg ba loolu ku ko gëm boo dajee suñ borom dana la mbugal ku am sa màggat toppatoo ko ku am sa wayjur toppatoo ko foofii mooy fi gën a doy waar jege ko mooy waral nga am ngërëmal yàlla toppatoo ko mooy waral nga am ngërëmal yàlla te kamaate bi mu tuddaanu bor boo leble moom lay fay boo defee noonu sa maam def ko sa wayjur bis boo fa toll yàlla def say doom woon la ginnaaw noonu sallallahu alayhi wa sallam nee na kamaate bi mu tuddaanu mooy bor boo leble danga gis fay ga al jazaaw min jinsil amal wax yooyu njabarkat yeneen ñoo koy wax njabarkat yi nga xam ne ñooy defi pettaaw di jël ay béjjën di ci laxas ay morso yu xonq jël ay buumi fàllay di ci tëfli guro seytaane yi di yéeg ci kaw asamaan di sàcc xabaar yi di leen ko jox benn dëgg bu ñu indi jaxase ci juróom-ñeent fukki seen ak juróom-ñeent yonent bi yàlla yónne de moo ñu ko waxoon am na jëmm joo xam ne bu mu tolloo ci diggante boobu benn waaye ngi ci wetam naan ko laa ilaha illallah waaye moom ndax toppaloo na toppatoo na li ko waa ji wax déedéet moom ñu ngi ko dégg mën naan nag naan dëh yaas dëh dawaas dëh yaas dëh dawaas lan mooy dëh yaas dëh dawaas ah mooy dix onze douze dix onze douze moom la jàppoo ba roogi rot biñ toppatoo waa jooju ndekete te kooka daal jàngkat la woon kàggu bu rëy la yoroon yor bigam daan bind fu mu toll waaye moom xam-xamam bi yépp ci wàllu calcul la féete woon bi nga xam ne faatu dikkal na ko calcul doo nga nekk ci xel mi compte am jëmm joo xam ne ji dafa mel ne benn patante buñ ko daan laaj patante bi moom altine ak alxames rek la koy joxe bi nga xam ne toll na ci sukkuraatas ndee benn waaye naan laa ilaha illallah ñu ngi ko dégg mu naan al isnayni wal xamis al isnayni wal xamis ma nga naan lundi jeudi lundi jeudi ba roogi rot kon nag doomu aadama loolu lii lépp am na loo ci war a jàngate mooy na nga seet sa xol bi loo ciy dugal sa xol bi bul nangu dara dara taq ci ba mënoo ñàkkanteeg loolu xanaa ak gaayam yu baax mbokk mi gannaaw bi nga seetaane vidéo ba pare ñu ngi lay ñaan nga bës fii ñu bind j'aime bu fekkee gànda ci chaîne bi nag bësal fii nii ñu bind s'abonné après nga activer cloche bii nii mën nga tamit wax sa xalaat fii si commentaire yi doo ci fay dara te dina tax vidéo buñ dugalati di nga ci jot jaa ngeen